jërë ngeen jëf ginnaaw bi ñuy jàkkaarloog moom moom mii di Ibrahima Senghor nekk directeur UDAM bu Koungheul euh, ci li xam ne moom mooy njëriñu UDAM depuis 2014 ba léegi mu ñëw ci lu yaatoo yaatu te nag dañ fiy ñëwaat seq ak moom beneen waxtaan bu xam ne si ñaari mbir yu am solo yu am ci département Koungheul ginnaw bi PAWDES demee bi xam ne moo nekkoon projet bi di leen accompagner mu am ñaar am solo yu fi ñëw benn bi di waa Enabel ñu wax kën ko xam ci la projet Plié 2 mu leen di accompagner de 2021 ba 2023 ba léegi mu ngi fi mais itam am beneen bu bees bu ci yokku boobu ñu koy wax ISMEA mu démarré 2022 bi war a jeex cinq loolu nag moo taxoon ñu ñëwaat a toog ak ki xam ne mooy directeur UDAM bi mu Ibrahima Senghor pour war a mën a seq mu waxtaan si njëriñu ñaari projet yooyu ak lan la ci nit ñi mën a xam ak fan lay gën a euh, wane. voilà asalaamaaleykum waa Koungheul Matar ñu ngi lay nuyu di nuyu Baye di nuyu sa équipe bi yëpp. en fait di man Ibrahima Senghor laa tudd maay directeur unité départementale d'assurance maladie bu Koungheul ñu gën ko xam ci UDAM voilà muy kuréel goo xamante ni mi ngi fi depuis deux 2014 waaye balaa parce que yeneen euh, département yi sax ñu ngi ñu koy tooñee d'ailleurs yàggul dara recevoir nañ fi benn consultant boo xam ne loolu la ma wax mu ne ma carrément Koungheul moom dafa mel ni am nga lu ngeen fi am ba mbir yi di fi dajaloo parce que tarifica moom ku am expérience la def na Afrique dëkk yu bari xam na ne tarification bi lu baax la mu am aussi couplage ak UDAM bi mu gis taux de prise en charge yi population yi am mu ne ma ngeen bëgg ci yokk encore projet ci jigéen ñu wérul ñi ak femme enceinte yi mm-hmm. mun nañu vraiment Koungheul am na chance misaal la rek mais en fait effectivement ren dafa coïncider 2021 bi ñu génn mm-hmm. dafa coïncider ak ñu nekkoon ak ci benn projet boo xam ne ñaari projet bu njëkk bi ak Enabel la ñu koy woowee le projet pilier 2 mm-hmm. waaw boobu c'est sur la santé de la mère de l'enfant et de l'adolescent boobu en réalité euh, marché de service la boo xam ne Enabel dans son budget comme ñoom dañu doon am vole offre de soins seen projet bii nag ñu accès ko ci affaire wu société renforcer am ko société civile bi renforcer euh, les les les aspects liés à connaissance u droit yi ay ay droit de la personne et tout ça mais bii ñu am un volet boo xam ne dafa concerner ñu renforcer assurance maladie bi ñu lancer un appel euh, def ci ay critères ñun ñaari UDAM yi ñu jàpp ne jaadu nañu compétir ci ñu déposer suñu dossier suivre ko yàlla def mu mu sotti waaw muy Koungheul ak Foundiougne ñoom nag projet bi mooy jigéen ñu wérul ñi ndeete yaay ak doom la ñuy xeex mais euh, ñu ni projet bi euh, xëy na mënul jël en charge toute la cible femme enceinte parce que booy xool fii ci Koungheul Euh, grossesse attendue yi li ñuy xaar ci 2000 li ñu doon xaar ci 2021 ci jigéen ñoo xam ne dañoo war a am nekk ci mbiru jigéen 9027 la ñu woon jigéen ñu wérul léegi nag projet bi mu ne xëy na budget matul euh, ñëpp mais dana ci jël 4392 femmes ci 9000 yi léegi ñu ñu bu boobaa ni ñu muy demee mooy dañuy cotiser ñoom femme bu nekk 16000 francs mais xam nga ni femme ñun ñu ne leen léegi ñoom ñu ne ñu liñ bëgg mooy projet bi jigéen ñi ciy bokk man di faju te duñ fay dara ñu ne leen mën na nekk mais nag day am bu boobaa comme ñun tam kuréel gi da ngeen fekk muy dox te bugguñu bu ngeen demee tam projet bi jeex kuréel gi nërmeelu foog mu am ay conditions ñu ne leen conditions yiñ bëgg ngeen permettre ñu mooy comme mille francs ngeen di joxe te jigéen bu wérul ñu jël ko en charge bu nekkee ci première visite am ba muy mu war a def quatre visites def échographie def analyse def rajo def truc accoucher def ay CP woon loolu ëpp na mille ñu leen léegi pour éviter aussi euh, mu projet bi dem jafe-jafe am ñu ne ni ñu jël maintenant euh, def li nga xamante ni mooy dañu naan projet bu ne jigéen bu ci bëgg a bokk. ci projet bi da ngay indaal lu mu gàtt gàtt ñeenti nit muy deux mille cinq cent fois quatre muy di mille dix mille yi boo ko tegee ci seize mille yi ci di seize mille yi dana xaw a léegi nag ñu ne leen kon ci dans cette condition femme bu ko def ñun danañu la defaral immédiatement carte parce que femme jigéen ñi bu ngeen ñëwoon ci suba si da gis nañ fiy baree dañuy ñëw di bokk si ci projet bi buñ ñëwee ñoom carte verte lañ leen di defal ci saa si lañ lay photo jël say kii yow jigéen bu wérul bi ci saa si ñu defar sa carte bu fekkul ñu xat bu xatee peut-être une journée deux nga jot ci carte bi parce que dañ fiy dajaloo si aussi ñu ne léegi yeneen quatre personnes yi nga cotiser aussi duñ jël dix mille yi rek bàyyi la noonu ñoom itam dañu am ay carte mutuelle carte yu weex yi nga xam ne boo demee da ngay fay tuuti ñooñ dans un mois ñu jot seen carte léegi nag avantage bi mooy bu boobaa femme bi moom bu demee faju ji diggante poste de santé op centre de santé hôpital Kaffrine wala Kaolack fu mu ci dem du fay dara dañ koy faj te du fay dara jël ko gratuitement gàllankoor bi mu dindi mooy fii ci dëkk bi ñu nekk dafa am gàllankoor bu fi nekkoon mooy ci CPN yi par exemple bu nekk mille francs la femme bi war a fay jëkkër yi daanuñu ko jox soxna yi ñi am carte 500 doon joxe sax duñ leen ko matal ñu ne nag léegi ñun dañuy fexe def de sorte que femme bi du fay dara pour que kii moo tax démb rek ñu ngi am benn rencontre fii euh, Kër Serigne Jëbel ak ñoom docteur Niang bi ñuy partager manuel de procédure bu projet ISMEA bi mm-hmm. mais docteur ci boppam moo waxal boppam ni diggante bi indicateurs yi yëg na bu baax parce que barrière financière bi doon tax bu sa soxna ëmbee war a dem visite ne la maa ngi dem nga war ko jox téeméer wala 2000 teggit nañ ko ko lool loolu nag dafa yombal vraiment accès tey benn jigéen ci département bi amatul droit di ëmb doo def sa matal say visite wala doo doo def échographie doo def fii te bu ci nekk tey 10 000 la bu ma lay misaalal rek bu ne ci euh, kii bi ci visite am yi 4 visites la war bu ne 2000 la waroon a fay bu amee mutuelle mu bay fay bu ne cinq 500 war na def échographie 10 000 la war na def ay analyse ak yooyu 10 000 la accouchement bi diggante soit dix mille sept mille cinq cent la wala vingt cinq mille bu dee accouchement compliqué bu dee bu vingt cinq mille bi mille francs lay fay ñu fayal ko vingt quatre mille bu dee ki amul kii mais bu dee femme enceinte bi la vingt cinq mille yëpp lañ koy jëlal en charge CPO nii noonu donc paquet la boo xam ne dafa xaw a diis ba nga xam ne mais comme femmes yi ci bokk dafay dafay bari ñu ne nañu nañu jël sa projet la donc moo tax boobu ba léegi ñu ngi koy dérouler deux mille vingt et un lañ ko tàmbali woon enrôlement bi ñu yegg ci présentement ci euh, euh, prise en charge bi ñu gis que ne vraiment famille itam ñu ngi utiliser service yi bi ñu demee ñaamee l'autre jour rek présentation bi ñu fa des ci données yi wone na ni ñu ngi commencé di utiliser mi ngi yokk en fait montant bi mi ngi yëg carrément donc ci tënk daal loolu mooy li nga xam ni mooy projet voilà puis ñoom fonds yi tax femmes yi xëy na dikki lool xëy na ñi ngi négocier ak Enabel parce que ñi ngi liggéey ci beneen formulation mm-hmm. ñun ci suñ plaidoyer ñi ngi fexe fësal ne Koungheul soxlawaat na lu mel ni liñ amoon ci pawodes bi ñu gën a dugal seen xaal seen xaalis ci seen doole ci wàllu offre demande de soins bi mm-hmm. ñu ngi koy plaider mais ni tamit cinq personnes yi ñuy laaj femme bi di leen organiser par ménage ñi ngi waaja laale tamit bu projet bi jeexee femme boobu tey ak borom këram am nañ déjà dossier idam dañu ñëw rek renouveler ko donc loolu aussi ñi ngi leen di organiser waale en famille pour def ko en temps aussi bu ñu mënee def le plaidoyer auprès des collectivités territoriales auprès des partenaire mhm. danañ continuer di ko def ba mu mën a am continuité mais daal kii bu ama am solo la ba nga xam ni fi mu toll nii jigéen ñi moom comprendre nañ ko bu baax te day day anticiper day permettre tey bu gari barrière financière boobu levé woo day faciliter parce que femme bi bu waree def analyse day dem def ko du am lu muy fay bu waree def aussi écho day dem def ko day tax ñu gën a mën a surveiller grossesse ba incha allah moom ak doomam bi ñu mën a mucc ci jàmm. waaw yu yu yu am solo. taxawaay bi a boobu voilà boobu tamit boo projet bu am solo la parce que dafa ñëw moom it mooy projet ISMEA ñu koy wax investir sur la santé de la mère de l' enfant et de l' adolescent mhm. boobu aussi moom avant avantage am mooy xam ngeen li fi xewoon mooy politique gratuité zéro cinq ans yi mu nekkoon lu xaw a jafe parce que nguur gi moo ne woon structure yi poste yi ak sant yi fajal leen ma xale yi amagul juróomi at te duñ fay dara man ma fay leen mais comme ni ngeen ko xamee muy am ay année yoo xamante ni day tegaloo nguur gi di yéex a fay mu doon nag gàllankoor ci jote ci paj mi parce que xale yi mujj gi dañuy ñëw mais buñ ñëwee dañ leen di xëy na consulter rek bindal leen ñu dem pharmacie te war leen a jox garab surtout ñu nekk tarification les médicaments pédiatrique gars yi finalement commandé tuñu ko woon. parce que li ko waral aussi mooy début bi ñu ngi ko doon def mais boo koy def te mu leeral ne fii ak deux ans duñ la fay doo nangoo jël say ressources aussi di ko dugal te yow aussi nga war a fay sa personnel communautaire war a doxal sa structure de santé loolu moo tax nguur gi aussi ci doxali mu dem ba gis ni. même ñi ñi arrêté wul zéro cinq ans yi di ko doxal sax niñ koy doxalee des na parce que xale yi nekkuñ di am garab paquet vide daal la état presque doon fay donc loolu aussi biñ ko càmbaree fële la daaw ñu tàmbali woon benn expérience pilote ca Kaffrine département Kaffrine muy pexewu jël xale yooyu noonu ñu dugal leen fayal leen ci mutuelle yi ñu defaral leen ay carte ñuy faju mm-hmm. bu ko defee état bi agence day day day transférer pression bi en réalité responsabilité bi da koy jëlee ci moom kenn dootu ko yónneeti facture mais léegi mutuelle bi mooy defarkat yi jox ko xale yi xale yi di faju di structure di facture mutuelle bi mutuelle bi di valider facture yi di di leen fay léegi nag loolu bi ko defee daaw ñu gis que résultat yi c'était euh, concluant ñu ne dañ koy tasaare ñu yokk ci ñetti département yu Kaffrine yi muy Mbirkilaan Malem Hodar ak Koungheul waaye itam yokk ko ci yeneen cinq régions muy six régions au niveau du pays foofu itam liñ ca jublu mooy xale bi dañ koy fayal cotisation mille francs la ko état bi di fayal bu ko fayalee mille francs ñu dugal ko ci mutuelle bi photo ko muy dem di faju ji buy dem xale bi buy faju du du fay dara ci post de santé bi bu demee voilà zéro cinq bu demee ci centre de santé bi ci li gratuit woon li nguur maye woon ci xale bi mhm. mooy faj bi ak garab yenn yi du ci fay dara ak garab yi ci am ci biir structure yi mhm. mais bu fekkee nag dafa am analyse bu mu war a def ci cent de santé bi du xale yépp a koy soxla tam xale yi quelques xale yi soxla analyse ci misaal bu dee mille francs la ñu war a fay analyse bi fii ni analyse 10 mille la 2000 la parent bi di fay UDAM fayal ko mille mooy 80 pour cent bi léegi bu fekkee ne xale bi dafa dem hôpital bu Kaffrine wala Kaolack pajam dafa yegg foofu foofu soin d'urgence moom moo fa gratuit ak cas référé bu dee dañ ko référé ak bu dee dafa soxla soin d'urgence moo fa gratuit léegi li des parent bi moom mooy euh, jël en charge parce que foog ngeen xam aussi ko foofu li nguur gi cotisé taxu ko mu takku noonu leer na ko ne mënul gàddu kii bi yëpp pour xale te comme nombre xale yi yegg hôpital du bari parce que ñu ci bari poste la ñuy yem ñenn ñi xuus ba cent de santé quelque rek ñooy jàll hôpital moo tax bu ñu demee eh, ñu mun leen a jël noonu en charge muy daal projet boo xam ne moom tam dafa ñëwaale tam ak pàcc femme enceinte yi fii nag Koungheul mu fekk ñu ñu tàmbali woon projet ISME kii bi Enabel bi comme Enabel jëlul woon toute la cible wax naa sànq ne 4392 la jël sur les 9027 léegi le reliquat ñu war leen enrôler dans le cadre du projet ISMEA donc ça fera que toutes les femmes maintenant danañ am possibilité maintenant fii nag bi mu amee comme ñun fekkoon na bi ISMEA bi di ñëw fekkoon na une année avant commencé woon nañ ak Enabel bi doon offrir un paquet complet gratuit aux femmes doo man nga ne femmes yi une partie bii dañuy bëgg di fay partie bii dañu fay duñu fay doo ko man communication yéen ñi ne ci communication loolu day naqaree gérer kenn du ko mun expliquer population yi ci lañ jóge fii ñun def une mission dem à Dakar rencontrer la la direction des opérations de l'agence de la CIMI man la woon ak le PCA ak le responsable du projet pilier de dem def ak ñoom une réunion technique won leen ne en fait ñun euh, comme télescopage am na on peut trouver une solution au départ le plaidoyer c'était que ñoom ñu fayal femme bu nekk Euh, seize mille francs comme ni ñële di def Enabel mais ñu gis woon ñu ne daal le budget de ISMEA est déjà bouclé mënatuñ ko laal donc ñu ne leen léegi on va fair peut-être les sept mille yi ngeen di fayal femme xam nga sept mille francs aussi tuuti na ci jigéen bu wérul ñu ne leen léegi on va peut-être passer ça sous le le le le régime de de de du partage du risque de l'assurance maladie ñu jël sept mille femmes yooyu. Euh, di leen jël en charge aussi gratuitement comme yeneen cible projet ISMEA bi moo tax toutes les femmes du département vont être prises gratuitement en charge prises gratuitement en charge mais le problème nag mooy ñoom itam fokk ñu respecter condition indi minimum quatre personnes yi waaw loolu mooy doon un peu la condition truc parce que loolu tam ñun dañ koy def euh, parce que quatre personnes yooyu mën nañ ko niru gàllankoor mais du gàllankoor parce que bu ñu defoon ni yeneen dëkk yi def yeneen euh, si régions yi appliqué kii bi sauf Koungheul li fa am mooy femme bi day fay ticket modérateur te fii ñun femme bi du fey ticket modérateur te ticket modérateur boobu moom mooy gàllankoor bi parce que ku ko amul même buñ la dugalee tey ci mutuelle bi te amoo téeméer boo fay doo faju si donc ça revient au même bu fexee ba moom mu enrôlé waale quatre personnes indi toute une année danañ ko mun a jël en charge buy faju jëkkëram du ko jox dërëm donc accès bi dafay dafay facile pour moom quoi. waaw waaw. Mhm. Mhm. Mhm. bi ñëpp la parce que euh, xëy na ci ci ginnaaw yaa vers le mois de janvier février lañ defoon recensement. dañu jëloon une équipe ñu dugg dans le département et on tous fait tout le département euh, village par village kër par kër def le recensement ba génnee une cible de euh, quarante huit mille euh, deux cent trois enfants yoo xam ne ah, recensé nañ leen léegi nag ñun la demande bi ñuy def ISMEA c'est sur la base de nombre d'enfants yooyu lañ defar facture bi yónnee mais xam ngeen ne cible yooyu dafa dynamique dana am ay ñuy bëgg di génn mais day am ñu juddu bees léegi nag foofu la la liggéey bi fi mu toll nii équipe yi ñu ngi nekk di enrôler trois communes ñoo ñu dese Saly Escale Missirah ak euh, euh, fële euh, Ribo ñu ngi nekk di ko terminer Koungheul def nañ ko ba pare bu ñu paree dana am nombre bu ñu am maintenant lii des mooy jigéen sage-femme yi nekk ci post yi nouvelle naissance bu ñu am day bokk ci suñu cible ñoom ci côté femme enceinte yi noonu lañ ñuy defal femme bu ñëw premier contact visitam rek ñu enregistré ko préparé ñu liste yónnee ñu ko ñun ñu demandé Enabel pour mu fay noonu lañ ñuy defal pour les zéro cinq ans également boo ko ko defee cible bu ñëw bees rek ñun dañ lay mën enrôler ñu bees ñi en fonction de nombre bi ñuy am ñuy demander projet bi wax leen ne am nañ cible temps yu bees ñoom ñu ñu war leen fayal noonu lay demee maintenant le li ci ne rek mooy bu carte yi génnee ñi ngi nekk di leen imprimer carte yi ñoom carte yu bule lay doon buñ ko imprimer ba pare carte yi dañ leen fexe ñu gën a gaawee xale yépp jot ci foofu nag la kii bi parce que bu boobaa xale yi ku ci feebar carte bi ngay yóbbu dem faju ji boo demee ci poste bi boo fajoo ba pare euh, ñoom ñu defar facture bi envoyé ñu léegi nag foofu la tam liggéey bi nekkee lu sérieux suñ diggante ak groupe moo tax suñu réunion démb bi xawoon na tàng tuuti parce que il fallait tamit que ñu préciser les choses li xewoon avant projet bi que munta continuer les paquets vides parce que xale yi buñ ñëwee faju si ñoom teef lañ nekk dañ leen war a jox garab yi mais ñun il est de question que ñun ñuy fay paquet yoo xamante ni amul garab léegi nag loolu li ci aju am na aspect xaalis mooy peut-être ñun d'ici là ñuy démarrer deux mois peut-être yi nekk en instance de validation ñu ñu fay leen ko mais itamit fexe ba après ñuy fexe mensualiser les paiements mais ñun tam bu ñu defee effort di mensualiser les paiements te incha allah noonu lay demee jël nañ disposition yëpp ñun au tourne autour de booy jël centre de santé bi c'est autour de neuf millions par mois pharmacie Babi rek c'est autour de six millions par mois pharmacie ça veut dire que nit ñi nekkuñ di joxe garab nga boole ci jëlagoo six pharmacie yeneen yi ak deux hôpitaux yi kii yi c'est autour de dix-huit millions par mois poste yi donc c'est beaucoup d'argent et environ une trentaine deux millions par kii te cible zéro cinq ans duggaguñ donc day bari bari boo xamante ni nii tey buñ ci boolee bañ joxe xale yooyu garab te dañoo bari quarante-huit mille enfants du ay caaxaan donc on va droit vers des difficultés c'est pourquoi le médicament il faut que ñu gérer ko on a assez insisté hier sur ça pour que vraiment les gens def l'effort di jënd garab yi di ko kii les parent aussi ñu jàppale ñu ci ku ci dem ci joxuñu la aussi médicaments yi nga mun ñu defal retour bi ñun bu ñuy joxe carte yi danañ fexe boole ci des numéro et tout ça bu parents yi mën a nekkee en contact ak équipe bu UDAM bi ça va permettre ñu mën suivre aussi délivrance kii médicament yi maintenant ñun jël nañu aussi les dispositions pour le contrôle parce que liggéey bu mel ni itam comme c'est beaucoup d'argent mhm. il faut nga jël les dispositions amoon nañ une équipe un chargé du contrôle médical amoon nañ une assistante sociale ak équipe buy liggéey ci facture yi mais maintenant euh, dañu wut aussi une déléguée médicale ak benn stagiaire délégué médical ñooñu ci wàllu garab tey jàppal ne bépp ordonnance bu jaar ci UDAM bi jóge ci post yi wala centre ñu ngi lay enregistré répertorier c'est pour mën a mesurer médicament yi yi nga xam ne ñoom dañ ko war a am te amuñu ko ñu mun mois bu ne ñu évaluer ko xool quest que ça représente en terme de pourcentage danañu permettre ñu am parce que tubaab donné la xam te booy wax ak ñoom ni offre bi jëndu leen garab dañ naan la jënd naa mais doo am foo ko teg léegi ñoom ñu amaat aussi la chance d'avoir un pharmacien qui est récemment affecté ici dans le district kooku tam comme c'est son métier benn ñu mën a jàppale bu baax ci ci euh, liggéey boobu léegi ñun à disposition aussi dañuy recruter deux infirmiers kenn ki mi ngi fi déjà jël na service keneen ki dana ñëw ñooñu dañ leen di jox moto dans le mois ku ci nekk en moyenne dana def quinze postes de santé bu boobaa ce qu'ils vont faire mooy factures yi ñu gars yi di yónnee buñ demee ils von valider les facture boo ñu ne Modou njaay faju na mu mën a seet ndax Modou njaay bés boobu ma nga ca registre ba bu fekkee ne ma nga fa mu topp moodu njaay ba cahier de sortie des médicaments par malade ba xool ndax Modou Ndiaye jox nañ ko garab bi muy dem xale yi 0,5 ans yi noonu bu xale faju see nga facture ñu cinq mille francs par exemple ñun moom mu vérifier ji gis ne cinq mille nga facturer waaye paracétamol nga jox xale bi duñ fay cinq mille yi façon yooyu donc validation boobu lu ama ama am solo la ci liggéey bi ñuy nekk di def active parce que boo ko deful assurance dafa xaw a sensible parce que euh, gestion ressource yi aussi da cee bokk donc moo tax c'est un métier un peu euh, truc te loolu mën nga jàpp ne fii sax lañ ko jot a def parce que même fu ñu organiser wu gu ñu noonu pour l'instant mais c'est des mécanismes yoo xam ne aussi en fonction de contexte bi foofu nga samp ko pour mën a contourner yenn yi mhm. am enceinte ñoom en fait ci côté bokk bi ñoom daanaka na nañ fexe remplir juste conditions yi rek ñun ci codification bi la ñuy jouer par exemple cible bi mille vingt 9027 la ñun buñ jëlee bu ñu jëlee 4392 femmes à partir de cent 4393e femme bi rek dañ koy codifier ISMEA danañ leen mën a xàmmee et puis ci code bi tamit foog nga defee ko noo xam ne danga man bu ñu la yónnee facture bi man bu ma xoolee facture bu ñëw bu ma xoolee code rek danaa mën a xam ban cible la parce que ci codification bi la ñuy notifier ni ban cible la dafay permettre yow booy euh, traité facture yi nga mën a xam parce que des fois noonu la ñuy laajee laajee kii bi par exemple ak bu jot euh, élève yi euh, agence daf lay wax ne la defaral ma demande de paiement pour semi élève defaral ma ko pour bourse familiale defaral ma ko pour kii donc loolu comme ay demande séparée la yow foog ci codification nga defee ko noo xam ne après da nga mun identifier cible yi ba mën a xam ku ci nekk lim joxe ci cotisation ak lim fajo pour nga mën a xam ñan ñoo la gën a sonal parce que dafa ñuy arriver boo xoolee données yi exploité ko léeg-léeg ñu daloon nañu fi ci jigéen ñu wérul ñi mu amoon Africaire benn projet bu ñu doon def ak ñoom euh, ñu doon euh, samp ay kuréelu jigéen trente à quarante femmes c'était bien ñu def ak ñoom enrôlement de groupe mais dañ ko commencé di ko def dans le Saly femmes yi di ñëw di dugg si ñu leen di enrôler mais femmes yi bu ñu ñëwee ñun ñu ne leen léegi dañ di cotiser ku nekk deux mille trois cent mais erreur bi ñu defoon mooy c'était des femmes yu nekk en âge de procréation ñoom ñëpp ñu ci bari dañuy jël ëmb léegi nag te jox la deux mille trois cent après jël li jigéen bu wérul di jël yépp dañoo jékki-jékki rek affaire yi yéeg bi mu gëstoo xool ma gis que ne en fait dama njëkkoon yaakaar ne sax soins d'urgence yee yokk ma xool nekkul soins d'urgence ma xool gis ne accouchement yi la mais quand bi ñu xoolaatee xool ñu gis que ne ca enrôlement du groupe yi la yooyu yëpp daf lay permettre yow au fur et à mesure ngay réajuster suñu modèle yi nag looloo ci avantage bi yooyu nga mën a gis gis benn affaire gaaw détourné ko bi ñu fiy abalee xam nga fii boo bokkee UDAM ba sa carte jeex premier mars 2021 premier mars 2022 sa carte jeex na mais dañ lay abal un mois ngay kon continuer di fajuwaale le temps que ngay préparer nouvellement fii rek la am ak Foundiougne mais en fait euh, avant trois mois lañ doon def mais ñu seetlu ne suñ mbokk alpulaar yi boo leen abal dañuy àbb trois mois di ci fajuwaale te duñu renouveler si léegi <laughs> biñ ko seetloo on s'est rendu ñu ne lii foog ñu kii ko ci lañ ko wàññi def ko un mois donc ba léegi mi ngi fi mais ak un mois bi c'est plus léger te day permettre nit ñi kam ñu préparer donc c'est des systèmes yoo xam ne professionnalisation bi tam loolu lay jëriñ en fait dangay am des gens yoo xam ne ils ne font que ça chaque jour ñu ngi fi mais di gëstu kii buñ ci gisee lu ñuy rek rectifier moom comme déjà ressource bi partenaire bi moom mu ngi koy dugal peut-être liñ ciy kii rek mooy comme par bi ñu def enrollement bi recensement bi d'abord informé woon nañ leen mais aussi enrôlement bi dañuy jël pen comme nii nii tey rek gestionnaire mi ngi may wax mu ne ma dañu war a woo buñ commune bu ñu war a dem man damay woo maire bi avant expliquer ko enjeu yi parce que il faut ñu comprendre ñoom ko lii nii état moo ko indi te pour xale yépp la bu desee benn xale bu ñu war a enrôler te enrôler wuñ ko rek partie la pour commune bi pour pour kii bi léegi bu boobaa ñoom seen responsabilité mooy ñoom it ñu jël contact ak tous les chefs de village ñun danañu ko def parce que ñun dans le dispositif woo nañ fi les présidents d'antenne ba jox leen du crédit euh, bu ñu contacter les points focaux parce que dañoo am aussi dans chaque village un point focal UDAM Euh, mais les chef de village itam ñu contacter leen fu programme programmer ñooñu danañ avertir chef de village mais mairie bi tamit rôle am mooy non seulement mu yëg mais tam mu jël lit bi woo kii expliquer leen enjeu yi ba buñ duggee ci dëkk balaa ñu fay génn xale yi amul juróomi at yëpp ñu mun leen enrôler moo tax ñu ngi amoon quarante mille yu ñu war a enrôler fii ma toll point bi moom mujj def la jël nañ plus dëkk vingt cinq mille quarante cinq enfants yoo xam ne enrôlé gum nañ leen salle bi boo demee salle de réunion bi dañu amaale une équipe informatique ñoom fay et autres ñi ngi fi depuis quelque jour quarante jours lañ fi war a def ak ñoom durée enrôlement bi lu gars yi jëlee sur le terrain ñu ngi koy dugal ci comme logiciel la ñuy liggéeyee ñoom dañ leen ubbil ay compte ci logiciel bi ñuy dugal instant bi xale yi foofu donc li nit ñuy jëlee sur le terrain les fiches d'enrôlement ñu ngi koy enregistrer directement di redimensionner photo yi et cetera commune bu ñu ci pare on est en mesure d'imprimer jox xale yi carte yi mu nekk première partie mhm. bi nga xam ne a xamle mhm. loo xam ne njëriñ la rek ko waxee mhm. léegi nag lan mooy cadre euh, bu mujj bi bala ñu ñëwaat ci biir a rencontré waa waaw xanaa di leen wax rek ne nañu gën a jàpp rek euh, mbir mi parce que projet yi ñu ngi fi nguur a leen fi indi que ñu ñu xam ni en fait ku ci bénéficié wul aussi surtout jigéen ñu wérul ñi dañu toll ci jamono boo xam ne dafa jaadootul euh, jigéen di toll ci mbiru jigéen ak ni mu mettee euh, muy am jafe-jafe pour jote ci paj dafa jaadu bu waree def ay visitam mu dem def ko te wax dëgg jumtukaay bi mi ngi fi ñun am nañu équipe yoo xam ne bu ñu xëyee fii day fees dell waa dëkk bi département bi yépp ñu ngi ci bu njëkk doon na xaw a gën a kii mais parce que suñ gars yi dañ doon dem terrain mais comme fan yi ñu ngi ci enrôlement zéro cinq ans yi population yi léegi dañuy jóge ci dëkk yi di ñëw comme carte bi itam ci saa si dañ koy jot moo tax ñuy def appel rek ci population Koungheul ñu xam ko nguur moom bu indee dara parce que couverture di universelle nguur def ko indi mais na dama bëgg a jàppale borom kër yi ci wàllu paj mais mu ne du ma fekk kenn fi mu tëdd ma di ko dimbali da ngay ñëw dugal sa loxo liñ la ne joxe ko mooy deux mille cinq cent te ngeen xam ne fii deux mille cinq cent yi dañ ko wàññi parce que trois mille cinq cent la ñuy laaj fu dul Koungheul ak Foundiougne cotisation annuelle ku ne lool nga ko war a joxeel mais fii ñun dañu ci wàññi mille francs parce que mbooloo mi ñu dajale bari na léegi nguur ne la boo joxee deux mille cinq cent man ma complété le trois mille cinq cent léegi nag xaalis bi nga xam ne nguur gee ko moom ñun ñëpp ñu bokk ko yow Matar nga nangu. jël sa njaboot dugal leen nguur gi am possibilité koo joxeel juróomi téeméer mu joxeel ko juróom ñaar téeméer man ma nekk sa wet dend ak yow sa kër yow ma bañ ne du ma def loolu li muy tekki rek mooy nguur gi am na bunt bum ma dimbalee bu mu la dimbalee yow mais man mus du ma mës a mën a dimbali parce que awmul bunt bum ma dimbalee ci sama wàllu paj li muy tekk itam mooy yow at mu jot li ngay ñàkk ci wàllu paj man dama koy delloo ci sama kër donc loolu aussi fokk askan bi xam ko ñu xam ne weesu nañu fu ñuy wax ay wóolu ñàkk a wóolu loo xam ne dem na ba fi mu toll nii ci àdduna bi wax dëgg fa yàlla tur bi yegg na fu nekk ci kuréel gi defe naa ni nit ñëpp nañ ci jàpp ñu ñëw profité ci projet yi mais itam jàpp UDAM bi ñun moom incha allah parce que bokk ci ñun li njëriñ bi mooy boo ci bokkee boo demee nga am jafe-jafe ci bërëb fajukaay da nga am ko mën a woone ko dem naa fee am fa tel jafe-jafe te ñun balaa ñuy tëdd ci lal danañ ko lijjanti ba woo la wax la ne la par rapport ak sa problème bi yow yaa juum fii wala yow yaa am dëgg wax nañu ak bërëbu fajukaay bi ak yooyu donc euh, ngeen